jàkkaarloo waat ak yéen fii ci wasaare làmb ndax seen mbégte rek mooy suñu bànneex mbokk yi ñu ngi fii ci salle fitness top fitness nekk fii ci nga xamante ni mooy Parcelles Assainies unité 10 ñu ñëw fi seet ci kenn koo xamante ne bokk na ci xale yi nga xamante ni ci ndaanaanu ndaanaan la bokk kooku mooy Boy Sine Boy Sine bu Rock Énergie Boy Sine mi nga xamante ni macha allah def na ay carrière am na ci empreinte bu baax a baax a baax def na lu baree bare bari ci làmb waaye ñoo mën a xam loolu dañuy dugg ci biir salle bi xool ki nga xamante ni mooy Boy Sine nan lay waajalee ak ci lan la nekk ak Boy Sine lu tax ñu gëj koo gis euh, Basiru ñu dem dugg ci biir. maa ngi fay. Euh, bëggoon nañu xam kan mooy Boy Sène. waaw gannaaw ma sant yàlla jur na ñu sant sama ñaar waajur kon onze billahi bisimilah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Sall jërëjëf Serigne Sall jërëjëf Serigne Sall waaw Boy Sène xale la boo xamante ne xam rek juróom parcelle yaroo parcelle xam di doomu parcelle xam nga juddu fekk baab nekkoon mbër xam mu bëgg a toj ay tànk baayam daal waaw lan moo la dugal nekk mbër nga ñëw bëgg a jaar tànk baay lan la mbër làmb lenn la loo xamante ni dama ko bëgg waaw dama naan nekk classe génn récréation teg samay xaalis teg sama xaalis tournant ñu koy bëri suñu biir xam nga waaw rawatina baay nekk mbër xam nekk champion xam nga waaw xam. lan mooy waaw bëri naa ñoom booy bambara. ñoom Fallaye ñëpp gërëm coow bëri naa ñoom lépp deetu làmb dafa ne ci man daal waaw mën naa ne xaalisu làmb la ñu ngénte sax waaw. xaalisu làmb la ñu ngénte ñaata combat nga bëri man maa ngi ci neuf combat huit victoire benn défaite. huit waaw lu war a tardement boobu duñ dégg Boy Sine ñu bari ci làmb xamuñu ko lu war a loolu. waaw Boy Sine donte sax xam nañ ko si làmb sax mais xam nga làmb dafa nekk loo xamante ni xam nga tegg wante bi dafa bëri daal waaw làmb léegi dafa toll foo xamante promoteur dañuy am seen i mbër xam nga mbër tamit nekk loo xamante ne dañuy sàmmonte daal mbër boo tiim micro yi naan ay waaw diw lii diw laa bu ko promoteur di seetee mën a xoolal ma fu nooy ma la demee waaw mais ay champion la daan ay combat yu mari ay Balla gi Gris Bordeaux Siteu Sa Thiès laa bëri daal waaw kan ak kan nga daan ci mbër waaw maa daan gin wër doomu kat maa ko dóor wër daan mut fay daan la dëggeer siñor daan lees siñor daan ceg siñor waaw ñëpp maa leen daan jaar nga ah, mbapat dama toj mbapat nag waaw du jël ci ay nag allah dama toj Chine Diourbel Bambey Mbacké foo dem bu ne Bou Sine doo réer waaw yan mbër nga dajal mbapat yoo xam ne daje gis nga leen ci arène bi ñuy tënk. waaw xam nga mbëri mbapatu côté boobu moom daanaka bool-bool sax laa fi laa fi gis mais côté mbëri côté bool-bool foofu moom ah xam nga foofu bëri dóor la. waaw si estatu Diourbel la ñuy bëri wala estatu Mbàkke bi waaw moo tax gisuma leen fii quoi mais mbëri bool-bool yi man gis naa leen fii quoi waaw. fi mu toll nii lan moo Boy Sine combat am jafe daaw benn combat na bëre ci saison bi su ma juum ba tey ñu toll fii te yéen ay xale ngeen war ngeen mën a bëre deux combats ci saison bi lu waral seen combat jafe. waaw mooy li ma la wax rek teggoonte bi rek su ma manager dama koy wax dinaa ma man xaw ma la la mais dañuy manager sax dañuy toog seen di moo waxtaanee ko ci nar a jox su mbër mu nuy xool ma fee mbër itam di teggi wante daal waaw loolu la. mosu ñu am kaaw ci làmb. waaw sama premier combat kaaw la waaw combat Boy Niang kaaw la maa dóor gin wér mu daanu. waaw mooy mais loolu lan la woon dóor boobu nga ko dóoroon parce que c'était la première fois ñu gis doomu mbër dugg ci sorti ci làmb daje koo xamante ni nee nga doomu mbër nga sax kon ñaari doomi mbër ñoo daje. nga dóor ko coup boobu lan la jàllaaj la wala coup bi moo dal fi mu war a dal waaw mooy li mu wax sànq rek jamono jooju fekk maa ngi si àll bi nga xamante ne dañuy dóor sa gémmiñ toj da ag rek rek moo ndox rek ñëwaat ñooñu maa ngi mbëppat si àll bi maa ngi boobu waaw du gàllaaj dara wóolu boobu la arbitre bi sifflé mu ngëpp miime mu daw ñëw ma xam ne kii nii daa mam gisatul si laa ko épercule moo ko éperculé si la jaaxaat mais du gàllaaj du dara liggéey la woon rek liggéey la booy mbëppat si àll bi bëri dóor boo ñëwee fi ay bëri dóor yi gëmul dina dina jaaxal daal waaw. depuis bi saison bi ubbee ba léegi promoteurs yi ñu ngi lay contacter. waaw promoteur yi ñu may contacter parce que instant bi sax am naa combat maa ngi war a bëri le 15 décembre incha allah dana ak musique. waaw musique bu musique bu bawal. non non musique bu kii école jumboor yi bu caaroy waaw musique bu caaroy waaw. waaw. Euh, ku tëgg lamb jooju. sëñ Mor Niang moo tëgg waaw le 15 décembre arène nationale incha allah. di woo ñëpp di woo sama sopp yëpp dina ne xam nga ñaa di woo sama mbokk séeréer yow ne o fogole séeréer maa sim naa nun gim naa nun xoyaa nun o fogole na rek mi boosin maa ngi xoya maa ngi xoya fogole ref na Diourbel Joal Fatick Sine Ngalañ Boof Sumnaan o fogole séeréer dam tam a jega important trop na mi daal boosin mu am loo xam ne seetlu nañ mooy yow da ngay bëre mbapat ci àll bi mais bëree Adrien Senghor gaal gi ndef lañ yooyu duñ la fa gis lan moo waral loolu. waaw man de damay bëre daaw rek bëri na Adrien Senghor damay bëri Adrien Senghor mais xam nga làmb séeréer dëgg la dañoo compétir la mais feeñ ci ba mu ëpp su ko instant yi bëree wu mbapat sax te adversaire dina taw kon boo demee mbapat foo jëm mais daaw rek def naa ñetti sorties Adrien Senghor waaw booba dinaa ci àll bi tamit dem naa Kaolack dem naa Fatick dem naa Gandiaye daaw te daaw sax du tax ma dem gën a mbapati ji waaw dañoo am problème ñu aj ñu quoi dañu ajoon suñu écurie bi bi ñuy aji presque deux mois ma leen saison bi moo tax ma takk jël sama saak dem ci àll bi mbapati quoi. ci aj boobu laa bëggoon ñu waxtaan ci lan moo waraloon aj bi ñu aj Rock Énergie. waaw aj bi benn genre njumte bu ndaw la woon rek boo xam ne daa am kayit bu ñu signé te wuñu ko signé rek xam nga ménagère yi aj ñu quoi di profité di gërëm suñu ménagère bi as waaw def nga ci at yu nice ba ñu ñu quoi. combat Modou Lo Balla Gaye ngeen am defet bu rëy mu gis la ci stade bi keroog ngay jooy xaaju lan moo waraloon loolu defet bi daf la bett wala jël bi nga yaakaaru loolu waaw lu ma bett la lu ma bett la waaw parce que Modou dëgg la ñoo nekk ci làmb ji mais ñoo bokkoon classe bàyyi ndoo école xam nga defandoo lépp xam ñu pare combat pare ko xam dama bett daal dama bett lu ma métti la woon waaw lu ma musul daal waaw. ci supporter lañ ko daan gis en tant mbër ni moroomam nga jooy jooy yooyu keroog ci stade bi lu bari xàmmeetuñu. waaw xam nga dafa la man jour wu samay jooy après sax la koy mën naa ne man xaw ma fu ma nekk waaw lu la bett mën la daf ma daf ma bett daal waaw daf ma bett ma waaw. waaye dafa mel ni defet boobu lu mu leen di métti métti. amaat ngeen beneen combat boo xam ne fay ne leen ko muy diggante Modou Lo Eumeu Sène mais bi nga ñëwaatee combat boobu dama gis beneen Boy Sine ci caractère ci comportement ci ànd ak Modou lan moo waraloon combat bee toll noonu wala yéen a ko bëgg. waaw combat bee toll noonu parce que boo xoolee moom sax moom moom moom combat woowu dama jaaxal parce que yeneen combat da nga waxtaan ak moom sax mu lay suwaat mais combat woowu dafa concentré wu ci bi xam nga yow sax da lay jaaxal maanaam roi bi lañ soxla nañ day ñàkk ko. ñëwaat pour day waat roi fa ñu concentré wu xam nga ñëw jël si moom yóbbu ko quoi waaw moo waroon concentration boobu nga gis quoi waaw. ana Modou ci lu mu nekk. Modou ñu ngi ñu ngi ci entraînement yi. kañ nga ko mujjee gis. ma xool barki démb rek. waaw barki démb rek. nga mujjee gis. loof këram. yëg nga ne ay supporters dañ koo mere parce que nee nañ depuis bi mu jëree couronne roi des arènes bi ba léegi deful benn sorte caravane yi mu duggoon supporters yi ba léegi gisuñu ko ana looy wax ci loolu en tant que supporter Modou Lo yi nga xam ne ñu lay déglu waaw loolu moom li ma ci wax du bëri parce que mën naa am ay moo ko téye daal activité moo ko téye peut-être su ko bàyyi rek xam nga dina def caravane waaw xam nga morom boo jugee ci combat tamit ñoom lañ jàppaleeg yooyu yëpp foo nga dox si ay tànk jàmm ak yooyu xam nga peut-être caravane boobu su ko activité bi jàppale dina am te ñu wax naan dina am incha allah waaw. ñaata séance ngay entraîner par jour. man may xëy dem dun ngoon ma dem contact yi rarement laa ñëw saal quoi. rarement laa ñëw saal waaw léeg-léeg muy xëy bañ a dem din ñëw saal kon ma contact kon mbër yi commencé nañ waaw man de maa ngi kontaan man commencé ak saison tey lépp man contact laa bëgg contact rek ba mu fekk damay contact waaw lundi ba tey dama doon contact tey rek laa moom gën a lu ma am. jàng xeex bi moom da ko jàng wala da nga ko mokkal wala ci sa base sa loxo yi koo wax li tax sa avance jafe ci làmb ji sa wax koo wax mu ne la Boy Sine dafa mën a dóor Boy Sine dafa mën a dóor est-ce que doo wàññi sa loxo yi moom dóor yi. waaw mooy li ma la wax sànq ne man li tax mënu ma xeex sax maanaam xeex bi gars di wasi mooy li ma la àll boobu laa ko tàmmee rek waaw ndax foofu nee naa la suñ côté boobu lu ko dalee Bambey Diourbel Sine Mbacké Mbacké Bawol xamuñu simple dóor lañ xam ku laa ko jàngee sama combat wo nga naan dama dóor doom kati mu daan wallahi lazim takkuma gaan d'ailleurs am naa rak buy boxe ñu ngi ci championnat mi ngi dem di voyage dem Maroc di xam nga di ko ñaanal tamit xam nga na dem ba nekk champion du monde waaw d'ailleurs sax kooku moo yor ay séance daal waaw mais bu weesoo loolu mën naa ne mbabat si mbabat si àll bi moo ma tàmbal ay dóor yooyu quoi moo tax xam rek ñu tàmm dóor mais am naa rak boo xam te ne boxeur la quoi champion la mu ngi dem ci Maroc Tunisie Côte d'Ivoire di ñëw quoi waaw Boy Jine kon ñu lay xamal ñu amoon jot na waaye lan lañ bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon bu ko wax waaw di wax ni rek combat bi nii xam waa parcelle génn quoi waaw soutenir ma parce que xam dafa jot bi mooy sama premier grand combat xam ñu génn jàppale ma gunge ma ma dem jël ndam li incha allah indil ko waa parcelle waaw ñu jàpp ci combat bi xam nga soxal naa jàppale daal waaw ci mobilisation bi xam ci lépp daal waaw. mbër mu toll fii bëre combat yu ndaw dem ba am grand combat. est-ce que dina yow am nga ay jàppale jàppale ñu war a waaw boo xoolee tamit ñun moom suñ côté bi loolu moo ñu xaw a téye quoi jàppale muy lam moom boo ci nekkee tam moo jàppale dina métti yow trop nag parce que mbëri ngay gis nii wala laaj nga mu sàng pour nga mu combat day jàpp parce que promoteur léegi kii lañ xam quoi maanaam mobilisation lañ xam waaw moo tax suñ combat di xaw a jafe waaw mais am nañ yaakaar ni xam nga incha allah day ñëw incha allah am si yaakaar baax a baax waaw. mais kontaan nañ trop noo gisee wasaare lamb ci lamb. waaw wasaare lamb moom ah, maa ngi koy suivre moom fan mooy toj moom fan yii moom wasaare lamb mooy bee incha allah waaw xam nga solo di gërëm suma booy suma mafia bi mooy gërëm suma mafia ku ci mel ni Mor Ñeeño waaw combat bi moom ah billahi wallahi su ma ba guddi sax dama jug entraîné ji xalaat ko ndax moom quoi Mor Ñeeño ak Pa Jaw ak Papa Diagne sama suma famille suma seex mi États-Unis di gërëm xam nga suma mag Ibou di gërëm moom bébé jabaram bébé di gërëm sama mag Ndeye Ndiaye bu baax a baax di gërëm sama booy xoteeku yi xam nga di wax nañ préparé combat bi xam ñaan di ñaanal jegaan sama rak am na combat moo ko euh, Ronaldo xam naa peut-être bëgg naa nga jël si ko am na combat Ronaldo le 9 février di ñaan gars yi may ko ndam di gërëm borom saal bi Badara Bousso di ko gërëm sama papa di ko gërëm bu baax may jàppale ci yóbbu ko rek di gërëm rakam Mansour ama Lamine Tafa Ousmane di gërëm soxnaam sama yaay madame Bousso ama di gërëm gaa yëpp ay ñoom góora a ama vraiment ngi jàpp ci combat bi di gërëm suñu waa koñ bu baax a baax a baax di ñaan mobilisation bu rëy di gërëm suñu président Khadim Kayga ama di gërëm waa écrit bi ama di gërëm sama doom jaay ñoom rawaan billaay walaay ama sama premier combat arène ki laa àndal ki laa àndal estat sama premier combat arène su ma suma la su doomu ndey la waaw du gën du gëm suma du gën oto bu baax a baax moo ma yee sax fajar di ma yóbbu dina di ma liggéey loolu métti bilaa damay dem ba naan tey du may yeew day ñëw sama nekk fëgg moom jugal ñoom entraîné di ko gërëm bu baax a baax xam nga di gërëm képp kuy jàppale Boy Djiné nañ ñëw jàpp ci combat bii nii nii nii kon sama premier grand combat waaw di ñaan yàlla may ma ndam ci kaw musique ñu koy wax Mamadou Diaw Moustapha Diaw Moustapha Diaw di ñaan ndam ci kaw waaw waaw maa turam. soo xamee. booy yow da de. si xamukaay laa xamee ci xamukaay yi. booy yow da <laughs> jërëjëf dégg li nga xamante ni moom la wax moom booy siin xam ne macha allah champion ndax ku bëree neuf combats am huit victoire benn défaite kooku làmb war nañ koo mu nekk xale boo xamante ne mu ngi fii ci Rock Énergie daje fekk ay ndaanaan ci làmb waaye ba tey. ñu bëggoon xool nag ci lan la nekk parce que wasaare làmb xàmmeewuñu mbër mu mag ak mbër mu ndaw macha allah ñun ñëpp lañ boole yemale macha allah boo gisee nga xam ni mu ngi ci entraînement bi métti sëñ Basiru kon foofu laa leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo di nuyu sama xarit sama doomu day métro bi ma àndal xarit <laughs> eh, jaajëf sëñ Basiru jërëjëf booy fii jaajëf rawaan ok jaajëf jaajëf sama gaay ba ëllëg incha allah ak beneen daanaan fii ci wasaare làmb jërë ngeen jëf But you live on the